Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est un écrit par Cine TV donc damay commencé nuyo bi rek ci ci suñu ministère de tutelle de ministre de la santé et de l'action sociale wacc ci directeur régional de la santé parce que ñooñu ñooy suñu ay tutelle wacc ci hôpital régional de Fatick bi nga xamantene ne fa lañuy liggéey di jël nuyo bi di nga teg ci loxo yaay boy mi nga xamantene mom moy euh, chef service de la maternité bi nga xamantene mom mo moo organisé tey journée de dépistage bi contre le cancer du col de l'utérus ak le cancer du sein def ko nag uniquement pour ñu wax jigéen ñi ne leen ñu ñëw xol ci seen yaram précocement ndax euh, loolu nga xamantene mom lañuy wax papillomavirus buñ ko teelee gis ci sa yaram vraiment dinañ ko yemalé fofu dinañ def ay dispositif yo nga xamantene jangoro ji famo mu commencé fa lay yem loolu moy utilité dépistage cancer du col nga def ko précocement parce que lepp luñu gis rek dinañ ko téla saytu téla wax ni li li la fi lañ ko yemal bu soobee jangoro bi du yegg fofu mais bo ñewuté dina bëtu ndax lan jangoro yu suuf la dina tollu fo nga xamantene yow do mëna wala buñ la dé faj tamit dañ lay accompagner rek mais bo télé ñew faju dépisté wu précocement yàlla mun na laa dimbali doomu jàngoro bi fa ñuy ragal mu ag fa du fa ag muy cancer du col de l'utérus di cancer buntu buntu ñurukay di cancer ween surtout jigéen joo nga xamante ne am nga ñeent fukki ak jëm kaw war nga ñetti weer yu ne nga dem xool sa ween ba xam amuloo dala lu ci luñ lañu ba nga xamante ne bu fekk gis nañ ci doomu jàngoro ñu teel laa jël en charge ba nga xamante ne liñ ciy ragal du ci am tey liñ jot a enregistré am nañ plus de cinquante femmes ñuy ñëwoon tey ñëw uniquement pour dépister parce que tamit politique bi mu ngi jàll sensibilisation bi mu ngi jàll ñun à travers panel yi ñu bokk yëpp dañ fay jàllale pub bi jigéen ñi xamal nañ leen ne cancer buntu butitu njurukaay mu ngi def des ravages li leen ciy dimbali nag mooy ngeen ñëw ñu saytul leen seen buntu butitu njurukaay buñ fa gisee des lésions précancéreuses moom mooy doomu jàngoro bi nga xamante ne xaw na kaa xaw a niru ñu dem laa boole ñi nga xamante ne dinañ ko dindi ba mu set wecc nga tàqale kook doomu jàngoro hôpital régional am nañ les moyens du bord am na les moyens du bord xamante ne wax dëgg neex yàlla am na matériel bu fa disponible auprès de la maternité nga xamante ne moom jigéen ñi nga xamante ne ñëw nañ fa uniquement pour xool seen yaram kenn ku nekk rek nga nekk pionnière kenn ku nekk tamit nga nekk relais ñu bañ koo bàyyee agent de santé rek kenn ku nekk si ñun fa nga dëkk ca koñ ba nga dëkk boo xamee ne octobre rose jot na am na ñoo nga xam ba léegi xamuñu la mooy octobre rose mais ñu xamal leen ni même bu octobre rose amutee sax nit ñi dañuy ñëw di xool seen buntu butitu njurukaay nit ñi nañuy xam politique ne jàngoro jooju léegi dañ koy faj éradiquer ba mu set wecc ci yaram boo toogee di ko nëbb ndax jàngoro yu suuf la wala danga nga dégg ne xëy na lii am na ku la ni lii cancer la nga di ko nëbb ba mu gën a indi leen ne loo nëpp nëbbal mu nëpp te bu nëbbee xeeñ te bu xeeñee yàqu léegi nag li leen si mën a dimbale mooy teel a jóg dem ci bërëbu fajukaay yi boo gisee lenn luy nodul wala luy xaw a doon xeer ci sa ween wala loo nga xamante ne yaa ngi koy sentir ci sa yaram ñëwal parce que ñun suñu yaram dafay wax ak ñun surtout jigéen sa yaram dafay communiquer ak yow lépp lu nekk ci sa yaram rek day communiquer ak yow xanaa kay nga bañ ko faale mais am na ay signes ñu lay won ay signes yoo nga xamante ne boo ko yëgee mbaa nga gis ko ci sa yaram rek war ngaa war a xam ne ma war naa dem kër docteur saytu sama yaram loolu tant que jigéen ñu ngi koy def ak jàmm dina am. man Ndeye Khady Diouf laa tudd nekk directrice régionale de Fatick bokk organisation bi ak wa FAFEJ def fay jité ko ak amical CDD wu Fatick bi ñu def nak ci suba amna dépistage bu defal après midi bi ñu def randonnée pédestre ak acteurs yépp ak partenaires yépp ñi nga xamante ne nañ ci bés bi donc loolu la woon ñuy lancer un appel nak famille di leen wax ne que dépistage nekkul jour bi jouru kii bi kese octobre saa yu ñëwee kese octobre kese ngeen war a dépister wu mais chaque fois que jëfee des 365 jours dañoo war a di dépisté wu kenn ku ci nekk war ngaa jege centre de santé structure de santé bi la gën a jege nga dem dépisté ndax sage-femme yi formé nañ leen de telle sorte que mun nañu def dépistage bu ci gisee loo xam ne ay jafe-jafe na ci lañ lay yóbbu nga seeti gynécologue au niveau des hôpitaux. di wax rek ne euh, journée bi euh, am nañ ci satisfaction mais pas à 100 pour cent ni ñu ko bëggee woon amewuñ ko noonu parce que dañoo bëggoon que femme yi génn parce que tay boo déggee ñu ne cancer col de l'utérus wala cancer du sein loolu jàngoro buy dal jigéen la bien que cancer dafay dal góor cancer yi bari na mais nag cancer du sein octobre rose moom jigéen ñi ñoo ko moom ba tax na bu bu bu weer woowu ñëwee dañu am ay opportunités yu bari yoo xam dañ koy teg pour vraiment yombalal jigéen ñi paju bien que wax dëgg yalla le traitement euh, traitement bi dafa cher traitement cancer ñep xam nañ ne dafa cher waaye nak bu octobre rose ñëwee man damay ne sama femme yi may andal même bu féké fatik le 23 lay def nga dem fatik bu fenen di def wala fenen njëkk a def dawal fofa day jar nga paas dem ba fofa dem xooli sa yaram parce que xol sa yaram santé amul prix. voilà donc journée bi euh, wax deug yalla def nañu randonnée bi ci si delu ci wat ci si euh, di ñaan yalla rek bu ëllëgee bu déwénee ak jàmm ñu téla jël suñu way def ko journée bu gëna yaatu bi gëna duggaat ci biir jigen ñi vraiment pour ñu xamné ne euh, feebar bi li dañ leen di sauver parce que c'est gratuit à l'hôpital dépistage yi ñu def ci suba ba c'est gratuit mammographie bi 40 000 la Les léegi ñu wàññi ndax octobre rose bi def ko 15 000 bien que ba léegi dafa cher mais foofu damay lancer un appel vraiment aux autorités du ma wax autorité politique kese mais vraiment euh, ñëpp ñi nga xam ne ay ay ay personnes ressources lañ ay bonne ay bonne volonté la ñu nekk si biir dëkk bi wax dëgg yàlla ñuy bàyyi xel ne mën nañoo faj mën nañoo euh, faj euh, sauver sauver ay jigéen yu bëree bëri ci mammographie boobu

Euh, wa santé la koy wax sax nu ñu organiser wo ba ubbi ben cagnot bo xamné ne dañ koy préparer bu ko défé bu déwénee wax dëgg yalla ñu mëna a le le le le le plus de voilà le maximum de femmes bu ko défé rek euh, ñu fajj parce que mënu chaque jour di xeex cancer. te chaque mois chaque année ñu né euh, octobre rose cancer nañu japp nak ben octobre rose bo xamné dañuy ne at mi yëpp gisuñ ci ben cancer. waaw femmes yi message yi ma leen di jox rek mom la dëkk ak ñom chaque jour matin et soir fu ñu wootee maa nga fa di wax ci cancer parce que nak dama ko dund. Kuku dundu moko moo tiem wanye, a témoigner mu nekk feebar boo xam ne feebar bu bu cher la waye nak febar bu bëgg discipline de traitement la mom mooy nga yar sa paju tey dang dañ la jox rendez-vous rendez-vous bu ko raté demal xool sa yaram te loolu rek balaa rendez-vous balaa febar di ñëw wax dëgg la jigen ñi nee nañ leen len leen ngeen xool seen yaram gratuitement buñ ko gisé ñu orienté leen ne leen jaar leen fi jaar leen fee ca tel ngeen mëna faju wër parce que la comme feebar yépp hein ah, day wër waye nak boko ko mu la voilà mom moy indi complication yi wax deug yalla ngay traîner ak fièvre bi ñuy faj def façon bu ne parce que yi muy bari ngay def lu ne té du parce que cancer ni muy ni muy ni muy kiwé ni muy yokko ci yaramu nit mo gaaw ba tax na rek lepp euh, spécialiste yi wax nañ la ko euh, donc pour mëna faju pour mëna wër sa di lancer appel aussi ñi nga xamné les hommes euh, jigéen ñi am cancer ñu ci bari seeni borom kër dañ leen di abandonné wala ñu delloo leen seeni i kër ñu leen di ñu bëgg nag ñu delloowaat seen xel xam ne feebar la comme feebar yëpp. voilà donc nit mën na koo am wër nit mën na koo am dee nit mën na koo ñàkk am sax dee donc pour dire que wax dëgg yàlla li nga xam ne moo leen di boole muy sëy c'est pour le pire et pour le meilleur. bu ko yàlla dogalee ñu muñalante parce que yow moomu góor yàlla mënoon na laa teg feebar te sa jabar day toog téye la kon nag nañ ci bàyyi xel ci euh, jëkkër yi nañu bàyyi xel ci seen soxna yi bu leen feebar bi dabee ñu gunge leen même bu ñu yorul xaalis sax wax ju neex sax dafay defal malaat donc loolu daal maa ngi koy ñaan waaye aussi di ñaan aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy dëkkandoo yi laa famille ñi nga xam ne ñoo wër malaat bi nañu ci bàyyi xel nañ koy yërëm nañ koy bàyyi xel bañ koo daw

moo taxoon mën a wax sànq ne Yacine na ko si dugal xam naa tamit elle n'était pas au courant bon naa doon wax naan foog ñu yokk ko ci comme tamit euh, tata wax na lépp mais ñun tamit foog ñu gën a saytuwaat comme ni ñuy wax euh, fa faame ndax sujet tabou bi moo yàq loo gis am na ñoo xam ne tey dañuy am dara nëbb ko baña a wax ndax damay ragal nan la ma waa kër gii gisee population ni ñu may accepté nan la ma diw di xoolee comme sànq bu ko waxee moo tax ñu war a góorgóorlu war a fagaru moo gën faju looloo taxoon ma gën see bëgg a sensibiliser. mu nekk par exemple li nga xam dama koy rus comme tey jii mun naa ñëw am benn feebar ma rus koo wax diw ñun boo waxee ñu ne waa santé dañoo euh, ngeen baal ma si mot bi pervers du loolu ndax jigéen ak góor la ñu jàng ba du ñu amee diplôme yàlla suturaal ñu si. di càggan ñun ñoo gën a am xam-xam pour ñeneen ñi mais dañ koy def dañ koy def pour gën a expliquer nit ñi ñu gën a comprendre ñu saytu seen yaram comme ni ko ñëpp waxee mais tey ni nga ko wax fii tamit dëgg la femmes yi ñoo waroon gën a bëri ñun tey bu ñu waxee da ngeen di dem tey dañoo kontaan certes sonn nañ mais dañu dañuy dem fee ñu expliquer clairement on a fait l'exposé durant toute la randonnée def nañ exposé bi en wolof boole ci français des ci lépp mais dañoo bëgg tamit ñu xam ne à l'hôpital régional la mu bon bon ñun lu ñu am ñeneen ñi ñun amuñu ko ndax ñun am nañ ay ko yu disponible boo gisee col bi di nga dem ñu defal la thériothérapie ñu nga mu nga fa bi biopsie mi nga fa lépp nga fa bu ñu demee nag ba xam ne nag kii bi saytu na ba sori ñun am nañ ay cancérologue mais amuñu lu bëri mais am nañ tuuti ñoo tane ñeneen ñi ndax tey la région de Fatick lu mu bon bon bon si ñun la ñuy ñëw pour ressourcer mun na ñëw pour def mammographie mun na ñëw pour def leneen répétition bi nag ay pédagogique moo tax may répété waat rek mais à propos des subvention tamit ah dafa am ñu si jàpp nag xaw ma ndax war naa am droit wax ko mais man bëgg naa woon sollicité ñëpp ndax tamit lu mu gën a bon bon xam nga mi ngi wax tamit

sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Culture sur Cine TV. C'est un écrit par Cine TV.